Euh, dañu am benn projet boo xam ne dañ mettre en place ci dans les zones minières mais également dans les zones d'extraction d'hydrocarbures euh, li ñu constaté gannaaw bu ñu defee information jëmale ko ci jigéen ñi jëmale ko ci euh, xale yi étudiants yi jëmale ko ci parlementaires yi ak population bi organisation société civile yi li ñu seetlu mooy daf ci am ay obligation yoo xam ne loi bi daf ko sant ñi nga xam ne ñoom ñooy exploiter mine yi wala exploiter pétrole bi surtout mini, surtout mini, yi jëm ci wàllu euh, naka la def pour jëmmal pour dëggal li wax le fonds d'appui au développement local ak wax le fonds de réhabilitation ak wax le fonds d'appui au développement euh, développement des collectivités territoriales biñu le fonds d'appui et de péréquation des collectivités territoriales euh biñu xolé dégg nañ né euh, en tout cas lañ ministre bi wax rassurer nañu que di def kémt lay katanam pour que fonds yoyu ñi nga xam ñoko wara ko jot ñu ñu jot ci te lool nek na plaidoyer bo xam projet bi daf koy programme bi daf koy yàgg euh, di euh, euh, di xeex te liñ ci en tout cas ci discours ministre bi daal na suñu xel partie, wàcc bi hydrocarbure depuis que nous mettons en place le programme USAID 36 nous avons a benn plaidoyer boo nous des coûts pétroliers Madame, audit lépp loo xam opération pétrolière Sénégal a un régime en tout cas li a bari dafa régime partage de production balaa ngay xam parce que régime patate production mooy régime mu bay séddoo balaa nga xam li nga il faut ki nga ko sekkal nga xam dépense le double dépense yooyu ndax lu war la wala warul te depuis lors ñuy demande de gouvernement pour mu def li wax audit des coûts pétroliers ministre bi wax nañu né ñu ngi ci liguey bobu noonu amna liguey bo xam ñu koy def pour mëna xam exactement ndax li opérateur yi di wax né mom lañ dépenser mom lañ investir ndax lolu mo am donc nek na lo xamné dañ ko doon plaidoyer ci projet USAID Trace ministre bi ne ñoom ñi ngi ci donc duñ def loolu diko ci gërëm diko ci sant di wax ne également comme nim ko euh, jëlé comme engagement mais gestion pétrole gestion gaz gestion mine au Sénégal en tout cas mom ci magistère da fay nek une maison de verre manam kër go xamné ne ñëpp dañ xam bépp information d'ailleurs lool moy mbir programme bi transparence et redevabilité donc ñun euh, ñing ko ci euh, ñing ko ci xaar te nar ko si jappalé également euh, euh, segam mi ngi tegu ci yoon bi ci yoonu transparence ak yoonu redevabilité forum civil ak euh, le projet le programme USAID 13 do def rek diko ci si lu dul di ko si ressources yi population yi ñoko mom lolu constitution bi moko wax té li population yi di wax souvent bañu démé ci zone Mboro yooyu dañ ne ñun dañ né ressources yi dañ né ñun ñoko mom way dañ ko gis muy dem daf ñu rombu di dem zone yi exploité yëpp zone yu bo xamné bo fa démé da nga naan fi alal gennu fa c'est des zones yo xamné très pauvres.